waaw waaw après waaw yow moom ma géré xam naa ko ah d'accord waaw. Eh, jaar naa la bi ñëw ah

waaw. Abdou Aziz Abdou Aziz Abdou Aziz nuyu naa la. waaw Abdou tey looy wax si ngane la tey bi. waaw sant yàlla rek. waaw mu def. loolu ah. ku ne moom ngay ñaan yàlla. waaye waaye moom tibb. roi des arènes la def jël sa ndey jël sa baay yóbbu leen màkka ku ne loolu ngay ñaan mais nit am na ko sax ba pare def ko waaw ah, te dafa am solo maanaam moom fu me nii dafa wan wane yoon yu ci yu bari ah. soo manee benn man ñaar defal ñaar waaw boo boo mënee benn nga xam ne benn nga man mais boo mënee ñaar def ko te moom mënut a mag déggoon mënut a mag aana ah. lu nu mel moo ko def mais dafa def affaire bu am sens bi mu amee xéewalam dafa jëndal yaayam kër ñu ñooy waata dédduwaay mu yëkkati oto jox papaam jox yaayam dañ koy ñaan yàlla lafal ko cat di wax ni moroomu mbërëm yëpp am na ñu ciy def lii waaye xale bu ci yàlla dimbali nga man lu mel nii defal ko say waajur waaw parce que am na ay moroomu mbërëm nag yu def lii mais keneen ku ci man na nga defal lii sa waajur booy ñaan nag li ñu koy ñaanal yàlla jëndal ko kër macha allah ci digg dëkk bi nag bi gén waaw fu mu sonne woon yaayam sonne woon daan luye di dugg fu ne di luye ah. tey jii titre foncier lay faral yàlla na ko yàlla lafal cat ah. boo ñaar titre foncier am ak ndayam ak baayam ba pare demul di luye faneen moom yaayam ak papam ñoo dëkk ci dëkk bi la dëkk mënoon na ko nekkoon dem ba almadi wala am ay nit ñu la bëgg ñoo xam ne foo bëgg sax ñu luye la doo fay dara ah. waaye doomu ñay bu bëggee gudd fan day xëy boo fe ci ndayam bu xëyee xool la nga xool ko te amul lu gën amul lu gën dégol amul lu ko gën te dégol moo ko def li mu doon moom ñu topp booy ñaar tuuti ñu topp ñu da nga door

Assane nuyu naa la Assane nuyu naa la. bu ma xamee ba léegi mosuma interview. tey di nga wax tey lan ngay wax ba kanam Assane lan ngay wax waaw lan ngay wax baa ma bàyyi leen bët rek. man ma xaw ma ay interview. waaw baa il faut baa ma bàyyi leen bët rek. yéen topp leen bët rek. oto bi la génn oto bi dafa war a génn. waaw fii nga tabu fii ci biir. waaye léegi ñu mën a yaa ngi nii. jàll ci biir. ndeysaan. jaajëf mon frère. jàll ci nga ne la baa ngoog. ah. ndeysaan. yi la dégal di toog. yi la soxna Ana di toog. alhamdulilah. saan taaru na taaru na de félicitation Boy li nga def rafet na yóbbu yóbbu sa papa màkk yóbbu sa yaay màkk jëndal kër kër valeur cinquante millions ah daw na yaram oh na yaram ah, jëndal sa papa oto ah. ndeysaan waaw waaw bésu bi loo ciy wax. non bésu tey moom damay ñaanal mbër quoi. waaw yàlla may ko gudd fan ak wér. Mhm. ndax li mu jaf def nii. Ah. non jafe-jafe. jafe na yóbbu sa papa ak sa yaay màkk. jëndal leen kër jëndal leen kër. waaw ah, joxe ay oto yu rafet. ndeysaan ñun dëkkandoo yi ak raqam yi ak magam yi sax. Ah. da leen di jàppale. dëgg la kon yàlla na jàmmam yàgg. mu mbër mi amiin amiin waaw incha allah waaw. amiin merci mon nga affaire yi. ngoon la de. ngoon la waaw si kanam rek.